C'est un sujet extrêmement important parce qu'il s'agit de l'insécurité dans notre pays Nous commençons commencé petit am parce que li fi xew en plein jour la xew li fi xew du ay paka ak ay fétal la ñu té mi nga fi am da autorisation donc lu si laxasu dafa bari moy arme yu circuler moy audace bu ay nit am en plein jour fek ay nit yo xamante ne dañuy daan sen doole nga attaquer len tirer len fetal ba pare continuer di tirer mel ni ku nekk ci film donc lu graw la rew nak su fofu da fay laaj ñu ñi nga xam dañu engagé wu ñu am ci taxaway motax tax dañu jël décision ñu ne dañuy ñew bu fi xol mbir mi dem ci famille parce que japp nañ ne euh, li mënoon dal ku ne ñi fi ibi boutique yépp te ñu am luñu leen yaakaaré loolu mën na leen dal te suba yi day tax wala ngay xalaat client bi ak stratégie boy def pour jaay waaye yaa ngi xalaat sa sécurité réew nag su demee ba tollu foofu développement am day am problème parce que problème insécurité dafay jouer ci problème développement moo tax dañuy ñaan nguur gi mu am taxawaay bu mat ci loolu il faut une présence dissuasive

te ñu ngi massawu aussi sénégalais yi was massawu population mbuur parce que soo gisee démb taxawaay bu nit ñi am mbuur euh, ak jàmmaarloo yu fi am nga xam ne ne metti na nit ñi donc li li dal ñi ñi ñu faat mënoon a dal ku ne moo tax lii dañuy ñaan rek nguur gi mu am si taxawaay davantage population yi aussi ñu gën a collaborer ak force de sécurité ak défense yi parce que ñoo xamante ne dañuy jaay ay armes te waruñu ko jaay ñu dénoncer leen ñoo xam ne dañu jaay ay munitions waruñu ko jaay ñu dénoncé leen ñoo xamante ne dañu nekk si situation yu louche xamuñu seen dem ak seen i dikk nañ leen bàyyi xel nañ leen dénoncé suñu gisee loo xamante ne wute na ak loo xam ne méngoo na ak lu population yi di dund. donc il faut que population ñu collaborent avec les forces de sécurité et de défense il faut que aussi forces de sécurité et de défense nous la leen orienter protection yu population Nous avons taxaw population Nous avons nag orienter leen du rek directives mais nous mu ñu renforcer leen taxawu leen ba yenn yu système de sécurité yu am pays développés à travers le monde nous sommes dans le domaine de la prévention fii presque mbirum médecin après la mort la maanaam nit dafay ñëw def après nag ñu teg ko loxo c'est normal euh, wala ñu def enquête jàpp ko c'est-à-dire que tamit vraiment euh, xam nit ku intention c'est clair mais am façon taxawaay boo xam ne yenn yu bëri mën nañ ko éviter il faut que tey jii ñu renforcer suñu force de sécurité yi ba nga xamantene ne dañuy nekk dans la prévention waaw parce que nag mënuñu bàyyi ba mbir mi ne këtt na jonn wala ba mbir mi am ba pare ñu ne ah jàpp nañ waa ji wala def nañ enquête bi mu jéne nii et cetera loolu beneen phase la mais phase de dissuasion bi phase de prévention bi loolu dafa war a am avant dafa war a am en amont donc euh, loolu la ñuy gën a ñaax gouvernement bi pour nous donner une force de sécurité pour que nous ayons une présence du nous nous aussi avec bien entendu euh, la collaboration des populations nous jël matuwaay ba nous faire xam dañu Nous ne ci réew mi banditisme